xarma la bu xam ne moom xaalis dañ ko ci nax fekk li ko def rek mooy bëgg-bëggam moo ko tooñ abu seydin moo ko jaay doom ji na ko jaam la mu jand ko nag ba dëgg defee nag xale bi na ko duuma jaam nag mu yóbbu ko ci yoon waaye lam ca jëlee rek xam ne nax nañu ko ba dugg na ci ko jaru ba dal la ca axbara xam le na alxaaris xaaris ibnu hammaam qaal mu ne la ma jubtu ba ma daggee albiida xàll yi ila sabida jëm fu ñuy wax sabid dëkk la ci yaman ba may def foofu sahiba ni àndoon naag man xulaamun jaam boo xam ne xat kuntu nekkoon naara baytuhoo di ko yar ilaan balaxa ba mu jot mm. asudda woo kattanam mm. asudda mooy bu ñu amee fukki at ak juróom te mm. ba mu amee ñeent fukki at diir boobu mooy asudda dañu waaw asudda woo kattanam wasaqabtu woo ma yar ko mooy ma niteel ko tasxiif mooy ni ngay def ba noonu boo bëggee mujj bëcc dafa ne ni ngay yore ni taag mala boobu ma taag mm. us da mm. woon jubóo daa amoon jàmm boo man maa yar mm. ba jot kattanam maa def ci yoon jukki yi ma bëgg ci nit wa kaana nekkoon na xat sa demiit bi alxaqi ci samay jikko wa xabara te mu xam ma jaale bi faqi bu jooye sama dëppo menoon na ma xam yi ma neex wala bi yëkku nekku ya ya taxabta yi nekku doon taxataa da jéggi mm. marar mi sama càkkute mm. wala mm. wala yoxte wu daanul mooy itam fil marar mi ci xamoon na lu ma neex te doon na ko wut boobaa wala mi ko ya taxataa marar mi mooy li ma bëgg doy na ko soxla du ko jéggi di dem ci leneen wala yoxte wu fil marar mi xamoon na itam laa jarama ci dëgg daal hmm. li am daal hmm. wala jarama di sikk daal am hmm. na xuraba hoo jëfam yu baax ya daal iltaata tëq na bi sa bëri ci sama xel ala kulli yàlla tàmm woon naa ko ndég yim daan def def ji moom waax la soo te ma jagoo ko li xadari ci sama teew wa sa bëri ak sama tukki fu ma nekkaan daal moom laa de bëgg mu ne ci sama fekk mm-hmm. moo xam ci kër gi la mm-hmm. wala jóg naa tukki mm-hmm. mu lay tàmm yaa na sax ala jarama ci dëgg-dëgg daal am na xuraba wa jëfam yu baax in taata taqana bi safari ci sama xol waax lastu jaba woon naa li xadar yi sama teew wa safari ak sama dox fa alwaa dal di xalak bii ci moom addahru jamono al mubiru judaaji xalage ina dammat naa waxtu ba ñu tàppee mm. sabiiru dëkk ba ñuy sabi mm. yàlla ñu ànd ci tukki mm. dem sabiir bañ a gis sabiir mu maa saalat ba yëkkate ko naxaamatoo biti ndëggum saalat naxaamatoo mooy deena biti ndëggum génn wasakanat te dal na matoo baatam mooy deena laa aussi yow den may neexlu. temps amul benn benn. mel ni sama biir bi dafa fees. même xajatu mm. ji. léegi métti lu wees am. Mm. wala aussi yow den may sàkku. Mm. wala man jàmm. mais dama suraa dina. bëggatuma jàmm. xataa jaat ni baloru looma. sawa ibul wahdati way jaxal ànd ak kenn itam mm-hmm. sotti mm-hmm. loolu laa nekk bu wéree gañe mm-hmm. wa mataayibul xawmati ak coonooy jog wal xaadati ak toog lépp rek maa ko fi ko sama bopp sama bopp waaw lépp rek maa ko fi ko sama bopp fu ne rek maa koy demal sama bopp te am na yoo xam ne wax dëgg yàlla nag nit wutu la ca baax coono yooyu nag moo ma dugg ilaa ataada ba ma wattal mm. ani duru ci wurus mm. alxarasa per mm. waa taada ak ma man ko waxtu ne woo moom sadaadun mëdd la dina ma sëñ bi ñàkk ma ne su ñëwee doole du mel ni ki fi ne woon yi ku nit ma baax ndax bu melul ni ku fi ne woon fa qasattu ma jublu man ki nga xam ne yéen bi ma dana mu jaay alam alam bi ni bi soo xee sa biir te jaxee sa biir ma ne damay dem sa biir ca marché ba seen ñi nga xam ci loolu la haju ma dis leen ko ma dis man ñi nga xam ne yëpp yow danañu jaay alhamdulilah la jaam ñi bi soo xisa bii daal ci jaab sa bi xam nga damay dem ci ba su ma demee ñi seen liggéey yan boobu ma di leen soxla bi tawatal leen fa qultu ma ne leen ma dem ci ma ne leen uridu danaa namm xulaaman jaam boo xam ne yoo jibu dana mu yéemuloo isa kulli ba bu jaam wa yow ma ruti dem na ko sant. isa jurri ba mun a toogee te itam mu doon ko ne jëmm ja mel. noonu la yar mel. soo ko dugalee ci seen biir kontaan. wali ku nekk. même man de ko xam ne xar rajo yar na ko. taxriij mooy yar nit ba wóolu ko. ne ko demalal sa bopp. wala ko mooy xir bi. ah waaw. Mm. alak yaasu way muusi. na doon ko xam ne ku mën a yar moo ko yar ba wóolu ko mm. dellu ko wax a wax mm. xarraja wa yan alayas buy muusi mm. waxraja ko alif laa su ñàkk ila soo ko jabi na de koo xam ne ka koy jaay lool rek kat mooy ko jaay marchandise su fekkee lool rek moo tax borom de ko jaay foo ko fekk marchandise bu baax lay waaw marchandise bu baax lool rek moo lu ñuy faral di wax déedéet dañ laa war ne sotti na mm. ah loolu moom mooy seen mbir waaw loolu mooy seen mbir déedéet mm. déedéet tudd ne yaakaar nañ ci intérêt mm. ñu wax lay dëgg rek déedéet ala ku laal buñ la waxee li dul dëgg nag bu def jotee am liy dëgg rek mooy mën a mu ne fa tasa daal di gësamu ku lul képp minoon ci ñoom li mat la bi ci sama càkkuteef wa wasaba te mu buur wa badala mu joxe taxsiiloo xamalam an sababin ci jege ba ko waxee daal kenn ku ne waree lu mu ci saware war nga ne kooku du muskila daanaka fàtti na sooy ba nga kenn ku ne lu doon wax waxtaan sa dal di bég ko loolu képp minum ci moom ci ñoom li mat la bi ci sama càkkuteef mu buur wa badala mu joxe taxsiiloo xamalam an sababin ci jege summa daara topp wëndeelu alahillatu teru tey dawraha seen wëndir mu ne ñu toog ba weer wa del si déré waaw weer wañ dem nañ ba mu des xame ren doona daw wa taqallabat te jàllabeku kawraha seen wàññeeku wa xawraha ak seen dolleeku dina ko baax wa taqallabat te jàllabeku kawraha seen dolleeku waxaw raxaa ak seen wàññeeku mooy dem nañ ba leen da daa awuzu billahi min alxawari wala kawri wa maa najasa te teewul min woo di ci seeni dël maa dun benn dël yéen ma digoon wan ma ne sotti daal unun ma ca dara dara wala saxaa sottiwul laa ñaar seen dënnu ya seen dig ya moom daal dafa mel ni keroog bañ ko waxee ba àggal daal falam maar ay tu bu ma gisee an naxaasiina met laa ngoy naxaas mooy kii tee ji nopp jaam de ko signalé ci marché ci marché bi mais naxaas am usunuhu fi yeddi naxaasi daamiyatan falamma raaytu ma gisee an naxaasina mellango yi naasina ñu doy fàtte aw mutanaasina wala ñu doy fàtte fàtte ma gisee gars yi xaama fañ ma fàtte xaama fañ ma kanayel alimtu ma xam ne an naka luy bir lay sa kullu man bir képp koo xam ne xalaqa natt na daal yëf yi da dagg ma xam ne càmpal daal moom ñu koy def bëri waaye topp ba mu sotti moom du mm-hmm. ñuy jàpp ne ñëpp mooy def mm-hmm. waan ak naka luy mbir mm-hmm. lay nukk du hokk jël sama der lu ko ngi kep sama we xam naa ne xesa na bu ma bëgg daal ci sama loxo bi daal koy amee maa ka jël dakka min la subrik léegi dafa tawalla anta jamia amrik wa ida qasasta li hajatin waxtel li muxtarimin bi qadrik farafattu ma daal di fëgg masaba tafwir ne masabu jooyal booba ne mbir mi maa ngi taxawal sama bopp ni ma ko baxee woon ma génn leen wa barastu ma génn ila sooqi jëm ca jaba bi subri ànd ak wurus bi féete ak xaabi ma dem maa ngi amee njëg buy wurus ay dinaar buy xaalis ay dara fa inni man la astaarif danaa gàllu alxilmaana gune yi ba ma demee boo defee xale yi ki may jël mm. waa taarifu te may wut a xam alasmaana njëg yi mm. di jéem a xam prix yi is ci mbettere xaaral da ni gaar naa gaar naa dina man mooy na ma feeñ na feeñu mm. galan na ma rajulun aga waay boo xam ne xadixta te mu muuroo na bi lisaanin ci làmmiñ moom la jaar ci sama kanam benn boo xam dafa tëj layu muuru bëccël may li kenn mën ta xam ko wa qabada mu téye ala sante xulaamin ci xasabu asabu mu ngi téye xasabu asabu wa qaala mu naan ma yastari min ni xulaaman fala baax na foofu la kon li waay la wax ci mu bañ bu yéeme mu ngi naan ma yastari min ni xulaaman sanaa fi xalqihi wa xulqihi qad baraha bi kulli ma nuttabihi muttalia bi kulli ma nuttabihi muttalia yasbika in qaala ndax loola ci tegu yasbika in qaala wa in qulta waa wa in tusibka hasratun yaqul laa wa in tasumu saaya fi nnaari saa wa in tusaahibu walaw yawman raa wa in tuqannihu bi dilfin qania wa huwa ala alkaysi alladi qad jamaa ma faaqattu kadiban wala daa wala ajaaba matmaan hiina daa wala stajaasa nafsa sirrin oodiha wa taalama abdaa fima sanaha wa faaqa fi nasri wa fi nafimaha wa wallahi lawla dan ko hayetin sadaha wa sibiyatun adaw maratan juwaha ma bina to milki kisa ajmaa la wax de mu ne man anakan yastari mooy jand hmm. min nii ci man xulaaman jaam sanaan bu daaji ñëw jàm boo ñëw ku xam ne xat baraa kowe na fii xalqi yi ci bindam wa xulqi yi ku xam ne wàllu bind rek xemu jeeg jàmm ñi wàllu jikko xemu jeeg jàmm ñi mu ku daaji kattanu bi kulli maa ci lépp loo xam ne nut ta haj nga haj ko bii ci moom mu nekk jàmm boo xam ne loo ko teg xattan na ko yas fii ka mu la saafara in xaala bu waxee te ko xam ni ñuy waxee kilifa la su waxee yow sa pas gàtt mm. wayin xulta boo waxee waama mokkal borom xel mu sotti la mm. loo ko wax itam dana ko am mm. wayin tusib ka te bu la jotee xasratun fakkatal yëqul dafay wax ne laa yàlla na nga mucc te itam ku am yërmande ci ku ko yàlla booleel la salaaw loola dal ci lu métti rek moom métti na ko wayin tasumu te boo ko toggoon asan ya dox fi naari ci safara saa mu dox te itam koo nangoo nangu la soo taaloon na ko jaaral ci taal bi sax mm-hmm. dana ci jaar wayin tusaayibu wayin tusibka wayin tusaayibu mm-hmm. te boo àndaaleeg moom mm-hmm. wala yow man doote benn fan la raxamu sàmm àndoo la te itam boo xasee ba ànd moom lépp lu ñuy sàmm ci àndoo da koy sàmm donte benn fan ngeen ma sa àndit du teelaloon dana ko sàmm wayin tuqaniwu te boo ko doylu loolan bisil fin ci wee xane amu doylu ko te itam loo ko jox doy na ko de te eh, lii de soo xippi woon weewu gàtt na ko am lii añee ko mm. kon it loolu dana ko doy mm. woowote moom mm. alal kay si ànd ak muus alladi gi nga xam ne jamaa dajale na ko maa faa mosul tudd xattu ci li wéy kaasiban daaji fen wala daa mosul woote kaasiban te li muy nite nite ni yëpp noonu la dëggoo mos la fen moom alal kay si ànd ak muus alladi gi nga xam ne xat jamaa dajale na mu ko ma faa mosul tudd xattu ci liwéy kaasiban daaji fen wala daama daaji fen wala ajaaba mosul xëyu man maan xemem xina daa waxtu wam xootee de dugg ci ay mbir nde xemem téefu boppam ñàkkaa doyloo lamam ñàkkaa doyloo kamam loolu du ko def lu mu dugg yaa ko ci dugg wala ajaaba mosul xëyu man maan xemem xina daa waxtu wam xootee wala tajaasa mosul daganal itam na sa yu limboot oo di xam dégg sago ko te itam ku am sutura la wax ko sa secret da dox de ko déggaat kooku du am wataalama ab naa na bu mu defee kéemaan fii maa ci li nga xam ne sanaa liggéey na ko liggéeyal na ma ay liggéey yu rafet yoo xam ne pour man kéemaan la sax wa baaxate nag kawe na fi nasri ci wisar wa fi nasri ak ci wëy maa ndir bu ndewee ànd même su fekkee da ngay liggéey ci xam-xam bëgg mu ci sa ndimbal ku ko mën a man la mm. ndax adib dëgg man mm. na wisar mu rafet man mm. a wéy mu wallahi gin naa ci yàlla lawlaa dan ko hay bu duudoon xat ak dund sadaa boobu toj na boobu gaar na su doonoon dund bu boo xam ne moo toj sama xal moo toj sama xol lawlaa dan ko hay bu duudoon xat ak dund sadaa boobu xar na sama xol wasibeetun ak ay gune adhaw ñooñ mujj nañu wala yor yor nañu xoraatan da way rafle jiwaan da way xiif bu doon dundu bu tax ak kon maa bi waxtu ko jaayee bi mulki kisra ci nguur ak kisra ajmaa mboole kon dara jar lu mu jaay waa ji de nii la présenté marchandise xaala xaaris nee na falamma taamantu ba ma xalqawoo bindab gune gi alqawima bu daa ji jub wa husnuhu ak taaram assamima bu daa ji sell ma xool ko seet jëmm ji ni mu ak ni mu bi loolu amee xiltuhoo jortuhoo naa ko min wildaan jannati naayem mu bokk ci gune ajanaay xewali dama ne kii jombul ajana la boo wa qultu ma ne ma haada dit kii basaran de in hada déet kii illa malakun dara de malaaka karimun mu daa foor mu daa ji tedd dégg ni mu rafete summa tantaxtuwoo topp ma tuddloo ko xanis mi yi ji turam ma ko waa noo tudd laa li raxmatin ngir xemem sax fexeel mi yi ci xam turam du sax ba xam turam dëgg-dëgg la waaye bal li fi nekk li asura na seet ay na fasaxatu ana fasaxam min sabahati ci taaru xar kanam wa kayfa naka la lahjatu kaddu min bahjati ci taaram taar bi gis naa ko waaye fasahatu lisaani bi moom laa bëgg a xam moo tax ma laaj ko noo bi wulwatin ci lu neex wala mu retin lu jàggeen ba ma ko laajee mu ne tar loo ma waxut yow ma ne wudoon ma ko wala faaha tuddul faw hasab ni amatin tuddab doomi jebeer mooy waxut lu jagadi wala hurratin du caagen tuddab doomi gor waxut lu jag waxut dara la fa darabtu ma du moyu xan ci moom safaan ak ak du moyu wa qultu ma wax la wa ñaal ko ma ne ko xubaan wanaa li hayi ki ñaa sa lott gi sa telewa wa suqante wanaa ak sori mu ba mu ko defee ma ne ah wax ah, dëgg yàlla nit de boobu man da wax ak moom xool ko dara ko mën a wax ak nit de te nit day wax ak moom jam nit la mën a présenté am bu xultu ma ne ko li xayi sa lott ki mooy sa tëlee wax gi sa dëgg ji ba suqante woonaa sori mu ne mu dal di xuru mooy mu sëgg sa ki ci waan ja da mu dongo mu sëgg ree dellu piir ree hmm. su maan xada topp mu yëngat hmm. rasoo boppam ilaye jëm ci man hmm. mu yëngat bopp bi waan sana mu sadd wëyi naan yaa man talahaba xayru islam abu bismi lahu ma hakada man yunsibu in kana la yurdika illa kasfu faasix lahu ana yusufun ana yusufu walaqad kasabtu laka alxitaa fa in takun batinan arafta wa ma ixaaluka taarif yaa man ay yow mi nga xam ne talaha ba tàkk na xëyduhoo meram islam abu bi ma tuddulee bismi ci sama tur la wa ñaal ko maaha kasa déen naka ni man koo xam ne yow sibu dana musalla yow mi mer nii ndeg laaj ma loo tudd waxaluma la soo def lu séqaguñ lu waaye in kaana bu nekkee hmm. la yurdi ka du la gërëm loo hmm. illaa kasbu ndare wuññim hmm. su fekkee lii sa da sa xol moo di ma wax li ma tudd faat se xerelu la woo jëm jëm déglul ana man Yuusuf ana man Yuusuf yonent Yàlla Yuusuf dañ ko jaayoon buuram ne dara mu foog ne man Yuusufa la mu ne ko wala xat kasabtu wuññi naa la ka ñaal alxitaa muuraay gi léegi man kat tojal naa la tax bi fa yéen rek kon boo nekkee fa dinañ daal di xel wax nga xam léegi soo amee xel da nga xamee ci sama wax ji. waaye may xaalu ko ma la taarif ngay xam waaye daal nirul ma ne daal looloo xam bu ko dëgg dëgg baax na boobu baax na xaala xaalis nee na fasarra mu dal de wuññi bi sama njàqare wasaba mu jàppu lub bi sama xel gone gi bi mu wéeri daal man daa amee lépp lu mu doon war a métti ci dafa seet da sama xol bi yëpp daal ci fasara mu wuññi xat bi sama mer bi si enri ci wéyam waxta baa mu jàppee lu bi sama xel bi séeri yi ci ci waxam ju fasaa xataa su diitu ba gënam loos na ma xani taqiqi walis dëggal man wéy bi sax detta dal ko dëgg dëgg dëgg ba gis maana mi sax xaw ma koy def di konta wóol diitu fàtte loos na ma xisata Yusuf a xisa yonente yàlla Yusuf ak siddiqi may siddiq fàtte naa mbir yonente yàlla Yusuf wala mi yëkkul nekkul lii dama ñaal xamul benn yitte illaa musaawamata mawlaahu nare waxante sangam léegi kay ana loo ko jaayee fa ibtire moo fii ci moom wasi daay tilaa samani ak sax koo xam dëgg dëggu njëg di wax fii ngir naa ko matal fi mu nekkee laaj kii jaay lim koo jaayee mu wax ko ma jox ko te yóbbu sama jàmm loolu la jàmm wa kuntu naa ax si bu de jortu annahu naka mawlaahu sa yanzuru xeet lay xool sadran keroog ilay jëm ci man wa yuxli te dana mu seeral xasimata xayma ji alayhi ci man dama yaakaaroon ne su ma ne ko ñaax daf may roog ndànk wax loo seer a seer xoolin boobu nga xam ne jaaykat yi buñ la rafetlu bi rek bu seer moom lañ lay xool loolu la ko woon فينظر قيسنا يقوى سرا فراق إليه جمجما ويغلي تدنا مسيرا أسيما تقيم جعل يجما ويقوم علق الديج إلا حيث علقت جمت فمدي ويتم بس ولا تلق هجود بما إلينا قمنا فيه يتلقت لا هجود man daal dama ko bakkaloo daanu ko feneen bi daal ban li fi nekk xaala wax ne dafa wax ne innal xulaama jaam dey idaa nasura bu néewee sama nuwoo njëgam waxam ba tooyam mu àndoo ay coonam tabarraka barkeloo bii ci moom mawlaawu sangam wa saaba teppeeg alay jox waawu ba neex mu ne ma nit dey boo ko te sonn loo ko ja dafay ci ñaaram ci def barke na dafay waral mu am ci moom cofeel xam ndeg ñàkk nga ñàkk a sonal booy jaay jàpp dañ koo seeral naka noonu jëm laa téye daal innal xulaama jaam daal idaa nasura bu néewee sama noo jëgam wa xafat tawaaya mu àndoo ay coono tabarraka barke law mooy gis barke mu barke bi ñoom mawla wu sangam wa saafa tepeeg anay ñoom waawu cofe la wa indi man nag la oosiru danaa tànn tax bii ba asal xulaam soppaloo gune gile ilayka jëm ci yow bi an uxafifa ci mu xoyofalal sama nu woo jëgamal sama nu woo jëgamal nekk ci yow man nag dama la koy jaayee njëg bu xoyof ndax bëgg naa ba léegi ne sonn na nga ci ba tax rek nga yomb koo jëf dama bëgg nga am ci moom cofeel ak ñoom yërmande loolu moo tax damaa woyofal léegi fasil na nga peese mi atay diraamin ñaari téeméeri dërëm yu si sa boo soobee su fekkee na ko xam nga ko man nga ko nga jox ma ñaar téeméer dara wax ko dana nga sant lii ñaa ma maa ay yitte bi yaa ngi dund te nag heure bu ne dem a bàyyi xel ci li ma la defal xaalis ne fa naqatoo ma teewalal ko almablaxa kem bi fil xaalis ca waxtu tegu ma ca baax dama ne loolu kenn di teg baax génne jox ko kama yu xaru niki dee ko teewalee jëg fi raxiisi ci lu ñuy waxteer alxalaali daa ji lew comme it bu la loo xam ne xaw na yoon te du la ne xam nga ne yomb na mm. na ngaa ñàkk a tegee baat mm. te la nga ne moom la wax mm. noonu laa ñàkk a tegee baat wala jam du rosu lii ñu am bi baarin ne am na kulla murxasin naka lépp aji aji seer matt nit ñaare foo ko bëggee ñu tudd la ci lu dul firéem rek dara na ca biir benn ma wala muy laxasu laxasu ci ki koy jaay rek mm. waaw benn muy sikki jëm mbas riir ma wala muy ab laxasu laxasu ci ki koy jaay rek mm. mu daal sama xel dajut loolu sama xel dajut loolu gis nga ko baax a baax gis nga ko bu baax a baax mm. yenn yenn yenn yenn yenn njëg yi man sawaruma ci di ko jënd dara sawaruma ci dara dara ma demee ci marché yi ñaare yenn njëg yi yenn njëg yi suuf yi lu may sawar di ko jënd dara di ko jënd dara wala yàqu rasul lii ñaxal ma bi baareen ci xel ne am na kulla murxasin naka lu ñuy watteer xaalim aji seer la falam ma taxaqaqa ba dëggoo asabqatu tàccu bi waxaqa tey alfurqatu tàggaloo bi ba ma ko joxee la ma koy jox ba ñaan la ba mu dem xamalat yoon na ba muy dem xamalat yor na ay nal xulaami ñaari bëti gune gi wala humu la tamel xamam bu jàggeen yor ak ron nga ji biir bañ tàggoo ba joxante ba dem def xale bi dafa jooy lool su ma xabala topp mu jublu ala sahibi ca caandandoonam ci borom ci waayam ci waqat mu jàkkaarloo góor gi ma ko jaay way way yi ne laha kan laaw hal misli yu baaw li kay ma tasba an kari suul ji yow laa ka yal na halak allahu yàlla yow yal na nga dee hal misli ndax kem yu baax dem na ko li kay ba tas baa ngir na rek alkari su njaboot al jaaw yu ñu ne way xiif jaay ma dégg njaboot gi xiif man suma xiif waroon na laa jaral jaay di da waroon na boole ci njaboot ngay wutal lu ñu dundi amoo xorma karis mooy bagage di biir waaye day jublu njaboot bagage waa bi curaax ci zaaf ndax nekk na ci yoonu sellal ne an nii man ku kàlla bu dem na wala mbir moo xam la su sama dégg ko man loo xam ne jagut loo xam ne loo xam ne loo xam ne waa ub laa na toofat ma berawen ci tiit bandarawen ci gannaaw tiit wa mit li kem xi ne yib laa waxtu waa na ko nat di ma andil ay mbir yoo xam ne ca kaw rek la may dikkee dama jaar fu pare ci kaw rek la may te ku ni man wax dëgg yàlla julloo amaa jarab ka nii xanaa na xam min nii ci man na saye ay laye biir yoo xam la mi ma siya jaxasoo jaxasoo ak ñoom ki daawan ay wuñ ku dëggu laa du ma ko lay wuruñ na ba mu fuglulooyee sarakan fii li Seydou ñaata ba ma su ma des si aussi abaa il est nekk na ci samay biir kasi ba ma dégg li jënd doon mbir mu sotti sa xol sedd ci ñaata yoon laa ko seq yow. wonut te yaa fi ngay laaj biyee ci man almasaay ba jafe-jafe ji parce que xaaral ñu xamatu mu tawee en tant que aji topp loo xam ne ñu bëri borom nga gàcce ma ko mu rafet ñaata yoon. wakana te nekkoon na bi aj na ibnu algarab waaye këriya din ana ban xale la ubli na tuuma fi aji moom li ñoo nawee di ana loo ma gis ma def ci gannaaw waxul min ana gan màgg lam yëkkul nekkul lii dama ñaar baaxoon nañ bii jëm an lan muy njëriñ te du ma la waxul min ana gan màgg lam yëkkul nekkul lii dama ñaar baaxoon nañ bii jëm wama abdat te feeñalul lii ñaar ma al aqyamu jurman tooñaange wayu sama saw so huñeer alxinaama muuraay bi mu saramati ci sama kaw te mënoo seetlu ci man lenn lu jar wàcc nit loo xam ne def naa ko nga ne dëgg la góor la waaye ni mënu ko xaame dama koy wàcc bu ma wax rek feeñalu liee ñaan ala yow fani jurman tooñaange wayu sama huñeer alxinaama bi hamdillahi ci sant yàlla min ci man ala aybin ci ayib yu kattamu joy def na ko nëbbu aw yu daawal def na ko siiwal xamaloo ma leer loo xam ne tey sama bëggoon a toroxal mën nga ma koy wala loo leer loo xam dama ko bañ a weer man koy nëbbu faat na saaxa naka la neexee indaka fi yow nafsu haaji sànni sama kóolare kamaana ba sànni ki sànni atanaaw xarala mooy borom métti bu la yataate xetti tam lu sàggare ma sànni mel ni xasi di daw faa naa saaxa naka la neexee ande ga fi yow naf naa di sànni sama kóolare na basan li ngay sànni ku xarala bu raye taa xeeti tam baax na ko sama la tabe koronu ka sabakan bim teyaali ci doxalal waa usra bu jaayee satma kama usra ni ki debi jaayee almatan bala man loo taxata nga dema toroxal ci biir mbooloo mi dema jaay mel ni kuy jaay bala waxata kunta tereta nga ñoŋeel xeet di sama der xanu walin jaay saw ni kam sama ñoŋeel hadisa ka sa waxtaan yow ma jàpp bis ba dëggoo dina am ñu aw la tàll hmm. la hmm. ko hmm. te bu ma ko weeroon xëy am loola nga ma jeex waroon waroon naa sax nga am war ak bañ ma jeex bañ ma waan jàpp loo ko jeex xëy na sama bañ la wax ci kër <laughs> ah. waxal laa saw nii kem sama ñoŋeel hadisa ka sa waxtaan yow ma janta bis ba dëggoo dina final ba daan tàggoo wakkulta te nga wax li ma ñaal koo xam ne yu saw yu mu dana mu waxante fiyee ci man ku may waxante bëgg maa jant danga ko waroon wax na ko haada kii sa kaabi sa kaabi ku may yohaaru débu ko xamle wala yu ba ma débu ko jaay sa kaabi turu faat la boo xam ne kenn ci Banu Tamim moo ko moomoon mm-hmm. xam nga sa kaw ndox mu yor nii fii mm-hmm. kañ ko dafa gaaw ñaa gannaaw mm-hmm. mu tuddee ko sa kaw benn dana buur bu yónni ndaw ci moom ne ko fas sa kaw nga wax fas ah buur nga dee fas moom dara man da sama jaar nag abayt laana inna sa kaw bi hen kun na fi sun la yu aar wala yu aar ah bu góor bi laajee de hmm. amul daal daal mooy loolu waroon na wax hmm. fa ma ana déen man hmm. doon na saa kër tiir bi ma yéen mool woole sa kaa bi de fa mu paree woon borom bu buur sax su ko bëggee ci moom doo ko jox pare naa la bu ko toll walakin li bi nekk ci baaxoo ko say jikko yow foofu nekk na ci kawam ci seen kaw te ci baax yooyu la jikko waaye da nga bokk <laughs> hala andi hand ak man nag soo si du xes naa sabbe hen da bayee fa sama njaay te ba may jaay dama naan adaamoo nii waaye batan adaamoo danga xam ne sa bopp rek du wala adaamoo nii tànk nañu ma waa adaamoo te tànk nañ aye batan ji mu ji bari tànk nañ ma waaye den bopp rek lañ ko yow ara ji ngoogu way أضاعوا لي وأي فتى أضاعوا ليوم كريه وسداد شعري قال حارث نينا فلما وعى بموكل أسيه غور أبياته أيوه وعقل تمقم مناقاته وحق بنيه مناقا مويني وغير بنيه di ko booyee ak yooyu waaye xam na ni waa ji wax la bëgg a wax dégg nga loolu mooy cosaan li ñuy wax bu ñu bu ñu jigéen ñi joxoon seen doom yi noonu. Hmm. atala re na yatan booba de. Hmm. bi loolu amee dana faral nokkat na asuma daa nokkat bu kawe. Hmm. dafa nokkat nokkat bu kawe. wa ba kaa mu jooy bu baax. moom gune gi. moom góor gi. xataa kaa bu mu jooyloo. asuma daa wéy góor gi mu seetlu dara li góor gi wax. dafa noo kat mu ne ma. Hmm. inni man uhillu danaa wàcce. xaasal xoolaa ma gile gune. Hmm. mahal la hmm. wala di wàcce wàcce sama tam. wala ko ma yi soo du ma ko jàqe. an abla bi kër bi di ci dogi ci sama ci dogi ci sama rek. mu ne kii de dafa demee noo xam ne. Mm. doom la bu jar mu ñëw jëloon sama bopp daal. Mm. xale yi mu nekk da xam nañ ko. Mm. walaw la xullubu muraay yi. bu dul doon seenu suma jomuwaay. mooy sama kër la ma dara new. wa xubu mitbaay yi. ak fayag sama lamp. ma xam même bu dul doon loolu. kon la dara jël du mu génn. mi noo si ci sama Mm. ilaa yu sa yaa bu mu gunge mm. ah si sama tànk mm. kon lu génn ci sama loxo lu ma dee wàcc ko ci loolu dama dara ji lu mu génn mi noon si tukkee ci sama tànk mooy sama kër ilaa yu sa yaa bu mu gunge naa si sama tànk waxaraay te gis nga maa li nga xam ne la wàcc bi ci moom min la waxtil tàggaloo mm. walla ka su xolu tàggaloo mm. gis nga tàggu ma ni ko tiisee mm. eh, wal mu ne te jullit xëy nun aji yomb la ah léegi nun aji nooy la ah jullit nag wax dëgg xolam yërmande yërëm la war a doon walla ka naan ñaan na la fii tasliyati qalbihi ci liisuloo xolam wa tasliyati karbihi ak wuñ ñu jàqareem an idan yi ci moom xëran rek man ali xala di ci xàccal bii ci jam bi mata sa xaltu waxtu boo ma xàccaloo waan la tax sa tërani ak bu den ngay ma diirlu yaa fa xaltu ma diisal dama bëggoon pour niisuloo ak dalal xalam ma xëran rek yow ne tolom tolom yi ma toll bare ba jaay xale bi ci xàcceel bi jàmm bi hmm. hmm. sa xaddu waxtu ma xàcce la waala asa sirari ak bu dee nga dee ma diislu hmm. ila sa xaddu ma diisale wa fil asaari dikk na ci hadis al muntaqa yére yu ñu tànn al marwiyati yére yu ñu solo ani siqaati jële ci ñu dëgërlu ci seeni wax ñoo ne ci hadis mu ne man aqaala naadi man bayata aqaala llahu man aqaala ku xàcceel na ma mm. naadiman ajiri ci bayatahu jaayam mm. aqaala woo xàcceel ko allahu yàlla na ko mm. nit jaay na la daal dem ba ca kanam mu xam na ca soxla xanaa xasoon na la ko jaay rek nga nangu mu delloo la sa nga joxaat ko loolu ku ko def sama borom dana ko jékkali bakkaaram mooy li ma mos a wax qaala al haaris ibnu hammaam xaalis ne fa waxtu woo ma dëxal ko waxtal dëxal boo xam ne abrasa woo génne na ko alxayaawu kersa wa bil qalbi te nekk na ci xol bi asiyaa mu ne xam naa xeres naa koo ñàkk ñàkk a wax waaw mu ne ko dégg naa waaye taxut na maa ngi jël xeres naa koo wax tiré daal mu ne ko dégg naa taxut dal mooy coosal mm. fasal naa mu jegeñal mm. moom góor gi yi na isin ca booba de mm. alxulaama jàmbee lay jëm ci moom mu ñoo di gune gi mu jege wa qabbala mu fóon maa li nga xam ne bay naa ne yi nekk na ci diggante ñaari bëtam wala mu woon diggante ñaari bët waan mu daal di sadd moom gi wadda moo teroon nga jar faddu mu ngi tasaaroo mm-hmm. min jaf na yu tukkee ñaari bati bëtam bari commencé saddu nga yéene xafit padat ka nafsu ma tulaaqi mm-hmm. min buraha il wajdi wal isfaaqi mm-hmm. fama tatulu muddatul firaaqi wala tanira kay wuttalaaqi doo ne amul qaadirin xallaaqi xafit na nga suufee padat ka yàlla nekk di sa jox anas anas ma la kañ suufee la maa ngi nga xam ne tulaa ki yaa ngi hmm. min buraha il wajdi ci ci hmm. faqi ak xatam hmm. di nga méttaloo tàggaloo gi nii dala leen famaata doolu du yàgg muddatul firaqi di ko tàggaloo léegi day mudd ak mayo wala du doxali alaka ibu talaaqi gawari daje yi bi husni awnil qaadiri ci rafet ak ndimbalal yàlla mi aji man soo xalaat kay bindal ko wante ndimbalal yàlla léegi ñu daal loolu la su ma xaala topp ntuur ma xaala ak taw jama ko mu ma xaala topp wax moom abu say mu góor gi loolu ñu naan bëri ak taw jama ko maa ngi lay dégg man ki nga xam ne woon yow waa almala borom bi sam mara moom day loolu la fi tam wala waa wi leen ak xawu bu ne gaa ngay doy de fokki rey sama yaqataw diir lu góor gi daggee kem lu góor gi daggee ma daal kem miir xale bi daal mu ngay doy góor gi dem na boor ñoo soree fa xaloog miir mu doon la falamma sabaaxa ba mu noppee mooy ba mu xiqee wa kaffafa te mu fekk dama waroo nga ñam al muhraq jëriñ ñu tuur ba mu joyee ba nag ma atadri ndax yaa ngi xam li ma ngir la awaltu la xaw est-ce que xam nga li ma tax di waala ma ak ci lan la yow bi nga dugg sa alaaka ci la la war sa nga sukkare xaalis ne ko xultu ma ne ko asumnu danaa jortu firaaxa moolaaka tàggoog sa sang bi wom asadi mooy li nga xam ne ab kaasa jooyloo na la ma ne ko xam nga ni sa combinante rek te sa sang bi ni mu wax noonu la seen diggante demee woon ma yaakaar ne sàggu gi moom war a tiit rek sàggu rek fa qaala mu ne ma ee innaka yow nga fi waadin yaa ngi ci kur hmm. wa ana man fi waadin maa ngi ci beneen kur hmm. wa in ata munakkarun mukarrarun taxayar hmm. mu ne ko yow fi ngay waxee fi may waxee bokkuñ de lu gune gi waxaade waadi de xaari de innaka yow nga fi waadin yaa ngi ci kur wa ana man fi waadin maa ngi ci beneen kur yow bokkul mi ñuy waxee maa yow wala kam aji bëri bay na muridin nekk na diggante aji nambu ba muradin nam léeg-léeg nga bëgg dara dañu kër kër yi fekk sori na la soo bëggee jàpp jàpp sori na la su maasara topp mu sax dugg ne wallahi ala ilfin nasax wala ala xawtin ayibin wa farax wa innama majmau asfali safa ala fafihi lahduhu hina sama waratahu hatta ta'anna wabtada wa dayha almanfusata albida alwada ويكها ما ناجتك هذه كاتيك المنى بأنني حر وبيع لم يبع إذ كان في يوسف معنى قد لقد كجيم والله عليه بنت خريف نصاب سوري خريف مو سوري تقول ما جاي wala jooyuma xanaa foo di nawet bi ci baata xewal ba pare ak mbégte fu nekk ma noon jógee ko taxoon ma di jóge wa innama man moo ajfaani naka ronga ji samay mbati bët safa sotteeku na ala xa biyin ci aji daf laxtu gendeekum dina tama waxtum yëkkatee gi sam man kay ki bëgg te liggéey doxul xelam ci bëgg-bëggam kooku ma taxee wa innama man moo ajfaani rongeñe samay bati ba safa sotteeku na do tuuru na ala xabiir jaaji daf la doo génneeku ina sama waxtu mi mu doon koo xam ne war na sewoo bëgg-bëggam dugal na ko ci dem na ba dugal xaalisam ci lu wóorul xata saxaan naa ba mu sonn waxta daxa te mu gàccew bëgg-bëgg tax na koy dugg mu seetal lu wóor na am wóorul watay ate mu sànq al manxuusatu lu ñu boyaale al biida la daa ci weer al wataalu daa ci leer xam naa alalam moom ñàkk na ko te xamul ci lu mu ko ñàkk dana mu tax a jóg way ka wana sa kéemaan ayoo dee jaaxal amaat naa jëkk xanaa dee yaa dee bu la xaati kër mu la yooyee lay wax yu xorom bi ànd na dee ci naka man hurun gor la wa bañee jaay ma lam yu ko daganale xanaa dama la in kaana la yurdika illa kasbuhu faatir la woo ana yusufun ana yusuf xamee wala ci man góor laa warin maa jaay ibi ngir kaana nekkoon na yusufa ci yusuf maanaam maanaam xat wadaxa moom leer na nga yonente yàlla yusuf xam nga jaayoon nañ ko buuru misra te nekkul xaarit ne fa tamasaltu xaala xaarit ne fa tamasaltu ma misaal maqaala waxam fii miraatil mudaahibi ci seetu aji mbërante wa maaridil mulaahabi ak gaarluwaayu aji fo man daal ma jàpp ne kii nag mun waay bay caxar bay pour man li muy wax day kam rek fa tamasaltu ma misaal maqaala waxam fii mir'atil mulaahibi ci seetu aji mbóorante wa maaridil mulaahibi ak gaaf lu wayu aji ko fa tasallaba mu dëgër tasalluban mu hiqi dëgër ak aji dëggal wa tabarraha mu daytalu min tiinati riixi ci cosaanal jaam mu ne ma caaxaani ba ci def kuy caaxaan doo xam ma su ma sa fa jur naa ji wëndeelu fii mu xasamatin ci xuloo ñu mujj xuloo jàmm nga waxoo dëgg du doon jàmm fañ lay jaay kenn du la ñemee jaay soo ñemee laa jaay léegi nga jàmm yow koy man duuma jàmm yooyu lañ nekk ñu xuloo ittatalat boobu jokku na bi mu laa kamatin ci koo feñaante ci dóorante ne ñu xuloo ba xuloo bi àgg ci xeex baro so bu jëmee ci gàcce bala taxaw rek fa àgg baro so bu jëmee bu jëmee ci gàcce bala taxaw rek fa àgg dañ ko waxtaanee daal parce que ci perte la jëm te dañ koy xeere mu ne wëcc naa ci wëndeelu fi mu xaasamatin ci xuloo ñu xuloo ittasalat boobu jokku na ilaa mu naa tamatin jëm ñu ñu xooloo jëm ni lii ma lii ma lii ñu soogoo di si dikk tekkale dañ ne ko baxala doyee waa ab mu bëri ila muhaakama di jëm ci kalame ate ci kalame ate léegi nag bay dina ba jëm ak kaw mën a la xew mu ne falam ma aw daanaa ba ñu leeralalee lil qaadi ñaal qaadi ji melo bi watalow naa te ñu jàng xale yi ci qaadi ji asurata bi bañ ko waxalee ni mbir mi demee jàng xësa bi mm. bu ñu ngi wax biñ jaar yëpp mm. ma ne dëgg mm. ne waali ji daw ne xala ma ne inna man ne ansara waali na lay fa xadaw saxa toog na ngàtt nit daal bu la bu la bu la magam waxoon naa ko daal hmm. moom moo gën magam xamoon naa ko hmm. yow xale bi hmm. wax na la wóor a dëgg ci moom waman mel ni koo xam ne basara bégal na da ngaa dégg lu la xemam loo ca man ko dégg lu la war a jaaji ci guddi la yow waaye sax li gën a dëppoo sa bakkan nga ne doon ay def yow koy ki bëgg a dégg mu wax rek kii bëgg a dégg mu wax rek waman fassara te ku wane na fama fassara gàttañ loolu te nit bu la waxee loo xam ne sooy borom basira war nga caa gindee ko bu ci xemee xeete ak xem na fa mu war xem inna allaha la yuhibbul bayaat kullal bayaat waman fassara ku xeete na mooy ku wax loo xam ne borom basira man na cee xame ma xasara gàtta wa inna fii ma te nekk na ci li nga xam ne sarahtumaahu leeral ngeen ko la dalilan tegtal ala anna haadal xulaama ci naka gune gi xar na baaga yeena mu la ama na waaye te jaa jugo wa nasaa la yeena biir la keñaan la ama waaye man daal mooy mm. gune gi daal pësin na la loo mën nga dégge jox ko koy subaana gàtte gu gàtt moo gën gu gudd coow li bu jëmee kaw nit yi dana ko noonu bañ naxee ko noonu rek waxtur nëbbal daa bala yëg a jàngoree sag wàññeeku xel waxtu walum te na nga yedd nafsaka sa te bul yedd wali waxdaari wattandekul min intilaaqi ci hajum wattame bu sa xel dañ mukk nga ne jàmm ne kom gurul adimi ku gore daal xeyru muaradin du ma ku ñuy gaaral ci taqwimi xaymal ki gor ñun ñoo leen gën a xam masaakil ijtimaa yi te kii góor piir la waxat kaana nekkoon abu ubayam ahdara woo di ko teewal am si démb o bay na uboole samsi ca njëkk a soo ak jant bi soog a jant bi waxtara fa te mu tudd bi ànd woo ci naka moom faroo banqaasam la alladi bi nga xam ne an saaw sos na ko waa na ko li mbir la waari te aji doon na ndaw de ko ñaar sew li ngeen dem di jant bi waaji sox da ko bàyyi min demu ko ci góor dégg nga dégg mooy li def moo tax man de léegi di wax waqat kaana nekkoon na aboobu bàyyam ah dara mm. mm. wa di ko teewal am di démb ko bàyyee la ko boole sam bi ca njëkk a suuxal jant bi waa tarafa te mu tudd moom bàyyam bi àndakoo ci naka moom fanoo banqa sam la alladi bi nga xam ne saw sof na ko waa nag na ko lay mbir la waa bi aji dox na la war ko ñaar moom bàyyi suuxal rek rek moo def xaalis ne ba xurtu ma wax lil qaadi moo qaadi ji ne ko awa taani ko yaa ngi xam abaahu bàyyam afsaw yàlla na toroxal ko allahu yàlla kii xam nga bàyyam kii de moom bàyyam yàlla nañ toro yàlla nañ dee xaalis ne ko xaalis ba xaana waa digi ne ko waxal wi dellu ndax gis nu réere abuseri abuseri am na si ki nga xam ne juru woo jam-jamam jubaarul neen la jam-jam boo xam ne moom mooy yow amul joxe daa fay mooy juba juru laaj maye juba da nga jàng ci waxtu naan baye moom bu yàqee dara amul fay abu sëriñ ki nga xam ne comme li bu sëriñ yow kàttan ko kenn du ko umbale wala woo te ñaar na ko yàlla kulli xaadi fa bépp xaadi axbaarum ay solo xaadi boo gis rek takk na lu bëri ci jaar jaar wa ixbaaruna xamle xaadim boo gis rek ba mu duggee ci liggéeyam xamal nañ kon mooy bu kon ñu mënuñ ko umpale ne fa taxarrattu ma lakkatu hiina itin ca booba rek mooy mayu xol bu tàng trop wa hawlaqtu ma la hawla wala quwwata illa billahi dégg nga dégg nga baax a baax waa waxtu ma xiqi walakin waaye hiina faata waxtu wa faate al waxtu waxtu mu ne boo mu ne ma xam rek la xew waaye boo fekk na boo fekk na xamaadi rey na ma waaye xam tu ma hóolu ne xam na lisaama kaana nekk na booba laa xam ne muuraay gi hmm. plan la bu mu la doon pour man ma jeexal hmm. su ma ko gisee du ma ko mën a xam hmm. ne wa bayta xasidati tey wayu xasida baytul xasida masalla ci luñ gën a fonk ci mbir waaw ah, loolu dellu waxal ne mooy ñu ngeen fonk ci sa yére lu bokk ci mbir te gën caa fonk xam nga xasida ay wéy lay do yu ñuy dajale wéy wa ci gën a ràññeeku ci taar nag su ko defee nag loolu moo ko def masal mm. ci lu gën a def muy dëgër laay wala mm. ma xam ne muuraay gi daal mm. mooy fexe mu gën a dëgër pour nax ma waaye su ma ko gisoon xàmme ko munu maa di jast tar bi sama gis maa li nga xam ne la xiif daje naa ak moom mu ne mu métti ma torop ma am ci kersa ah ndax itam nag ñu bëri nax ci caaxaan kooku gàcce la ñu bëri yaa leen war a yee yow ñu la tax ci caaxaan kooku gàcce la di giñ allah wa amilat beneen may jëflanteer mu la saman ku ñu muur maa ba xiitu fekk des na booba laa giñ ne digg si marché di jëflanteeg nit te xooluma ko ba xam kan la du ma ko def wa alaytum ma giñ allah wa amilat beneen may jëflanteer mu la saman ku ñu muur mm-hmm. maa ba xëy rek des naa walam asal dañu ma atawawu di atawawu di méttilu mm-hmm. les xudri safkat yi ngir perte ak sama tàccu gi mm-hmm. sama njaay gi waptidahi ak sama gàcce woo bàyyi na rufkat yi ci diggante sama gàcce affaire bi métti ma ndax ni ñu yóbboo sama yëf ci caaxaan ak itam wax dëgg yàlla ñi ma àndal ñoom ñëpp ñu leen wóore ne nax nañ ma mm-hmm. te jàppe man ku war a dimbale nit mm-hmm. ba la parce day ak sama gàccew mm-hmm. benn ruqati ji diggante sama ñaan ma al qaadi qaadi ji dal di wax xiina raa waxtu woon gisee imtihaadi sama méttilu wa tabayyana te mu birlu xarat bi maa di tàngooru sama lakkatu yëg na ni ma affaire bi méttee mm-hmm. mu ne ma yaaxaasa e yow mile mm-hmm. maa saxaaba demu mm-hmm. min maa lekk e ci saxaalal maa li nga xam ne waxaana ka waat na la saxaalal kem li ci dem waaye jëlee nga ci bind boo xam ne doo doo ko fàtte loolu ñàkkoo xëy na xalal ci dem na waaye baax na la jëriñ wala ajrama te tooñul ilayka jëm ci yow man ko xam ne ay xasaka xeena la te ki waxal ba mbir te xewal kooku ak lu mën a xew rek moom doona moom nit ak waxoon wala jirama toojul ilayka jëm ci yow man koo xam ne ay xasaka xeena la fattaxet na nga nga waadoo bi maa ci li nga xam ne jot na mu la jot la da nga koy def muy bind ëllëg wakaatim te na nga nëbb asaabaka say àndandoo ma asaabaka li la jot te jot la nga nëbbu ko ñi nga adat buñ ko xam nit ko yow day suural boppam dégg nga watazakar te ngay fàttale ko abadan faw maa di nga xam ne dahamaka di kër na la li tax ya ngir na fegal asigra fàttale ko gi dara imaka dara lii jotee la ci jëflante bi mhm. da ci bàyyi xel waxtu wu nekk mhm. mën naa waral ëllëg boo xamee dara mhm. kenn du ko yóbbu ci caaxaan wa taxallaq te na nga jikkoo bi xuluqi man ci jikkoy koo xam ne ubtuliya na soos na ko ba sabara te mu muñ wa tajalla te feeñ la woo ñaar ko xebaru xel xalam yi wa tabara mu xalam nit ku baax buñ ko nattoo day muñ nit ku baax bu gisee lu jar settantane da cee jëlee xeexu jëlal jikko boobu qaala xaaris ne xaala wax na alaat ibnu ammaam xaaris ne ne ko waddantuwoo ma tàggu xali xaw maa fa kalame jo ni xëy ma te wax dëgg yàlla mag waxagu ne mu xëy ko itam nag kooku daal <laughs> jogu loolu ko daal mag dafa war a wat ne ko waxagu ne mu xëy ko loolu mag da ko war a wat ne ko te xam nga loolu ko daal <laughs> te mag dafa war a wattandiku wax ak ku ne mooy mm. yow mag dafa war a wattandiku bu baax a baax mu ne ba wattanatoo ma tàggu ko mm-hmm. laabisan daa ji xootoo mm-hmm. soobal xajali malaanam rus mm-hmm. waxaatani ak njàqare mu ne ma am kersa am na ma métti trop man yóbbu nañ sama yëpp xëy ma ci ma kama bi te nag mag laa gune laa waxat mu xëy saahiban daaji diri mm-hmm. say na yël xabani ñaari lafir yaa ñoom benn ba naxu la mm-hmm. wala wàññeeku xel la mm-hmm. wal xam ni ak nax man def naa yi fi ñorat léegi sama bëgg-bëgg mujj naa ñu naaw wa nawaytu ma héene mu kaasabata abi seydin hu ñëwee ko abu seydin hu ñëwee ko teg moom bil hajri ci ma ne kii mag moom jeex mas ku rek dootuma ko may teel may bukk ونويت مهين مكاتبة أبي سيرين فيجو أبو سيرين بالهجر تتوقو ومسالمة الضغم يد الدهر ديرو جمع سما ديغا تمام جيخنا تاي بهن توكي دونو سيخ لنا فجعت مقرب أتنكب دي جنگ عن طراب ولي زنجريو بابا كيلاني بنا كنم دونو خطاو واتا جنبو ميتات raaf bu ma gisat ko hmm. bëggatuma daal suma bët bi tegee ci jëmmam hmm. su ma daggee mbedd seen ko sax de hmm. jaral na ma bàyyee mbedd mooma ak lu yor lu sori sori waxal si ilaa an xasiya nii ba mu dikkal ma fii tariqin ci yoon dayiqin wu daa ci xat mu am benn ñu dajee ci mbedd mu xat moo xam ne teggi ko du mënu fa xayyaa nii mu nuyu ma sayyata sayyiqin na yub aji sob mu ne yu won ma ne ma nam woon naa la de sahayaani mu yu ma sayyata sayyiqin na yub aji sob mu daal de ma ne waaye yow gi ñaa la gis won ma ne ma man nam woon lool ki xëy bu yàgg ba léegi ak ma la nam ma ah lii de yàlla rekk ko baax amaa surtout man nag doon li huma xalaat xabas ci ma ñëkkalat comment nabasu te tudduma wax na waxi maslaam jóor man ma la sama xar kanam ne mekk rek fa xaala mu ne ma eh maa ana lan baalu ko mooy dëmbit ana lu xew sama sa réew nga bi am bi kay ci sa bakkan xalaat bi kay ci sa xarit ah eh, yéen sa xarit ndaje mu ne ana lu xew dama taraytu ka bihan fikacita bakanaran fikacita kare fa qultu ma ne ko anna siita fàtte nga ne anna ka yow ihtalta fexe nga waxatalta te nga wuruj wa faalta te nga jëf faalata ka sa jëf allati ji nga xam ne faalta def nga yow njëmbe bi nga fi def waa léegi fàtte nga mu ne faadara tambara de purcu subi e coba de purcu kubare tuje de purcu bu noonu mu taxa di yet daa ji ji yi juru mel ni ku may saboote de wone yow daal ba daga ñàkk bu la nag su maa sara topp mu sadd mu talafiyal daa di dabaatal mu sadd way pour dabaatal ne yaa man ba daa minu su doodun ba mu xàgg ñu jàng loolu damay bëri ci benn ci mais dama naa ko ba faw ba xëddina tukki doon doxati maag moom de loolu laa wax su ma daggee mais da ragal dajeeg moom damay teggi maag moom ba xam benn bis rek ñu dajee fu xat a xam nga tànk ci suuf jaan ci suuf yàgg-yàgg ñu dajee dëkk nit te wax ne ma dajeeg moom loolu du mu ne bu ko defee nag ba ma waxee mu pour ci ma daal di wéy leen yaa man ay yow mi nga xam hmm. ba daa feeñ na minu ci moom hmm. su doonun ak ak du moyu hmm. mooyi sun gudaaji wéedal wa tajafu mun ak ak dikkale yow may du moyu ak dama dikkalee ka màgg waxadaa mu mujj yëri su de dungal malawi man ay yeddaange yoo xam ne min dooni hinna nekk na fa leen xéer ala su mu ay pareel ma ay kàddu yeddaange yoo xam ne moo gën a métti jam ni fet waxadaa te mu mucc yëre su de dungal ma laayu man ay yeddaange yoo xam ne min dooni hin na nekk na ba leen yëg mu fetti wa mu naan xal hurru ndax gor yu baaxoo dem na ko jaay kama yu baaxoo ni kii dee bi jaayee ala da mu fas wu ñëw maanaam loolu la ju nga wala jàmm bu maanaam ngor kenn war na koo jaay ni ñoo jaayee ni ñoo jaayee fas yu ñuul ni ñoo jaayee jaay yow mi may yéen aqsir sagul bàyyil yedde yi fa maa ana déet man binaan ma daa ji jakk fii ci jaay jàpp misla maa kem li nga xam ne te tawahamu yaa ngi ko nga taarix boo ko defut sa nit dafay manqué rek boo taarixee woon da nga xam ne du man maa njëkk jaay ko fi nga ko teg man binaan ma daa ji njëkk fii la tatawam kem ta dem bi insanin wala sifihi man lam yahes taarixa fi sadrihi xat baa dégg nga man lam yahes taarixa fi sadrihi wa man dara wala man qad mada ku xam mbir yi ñëwee yoon mm. adafa amaran umrihi mm. benn dundam bi mm. dafay taxaw taxawaayu yu bari wa man dara wala man qad mada adafa amaran umrihi dina ko baawa qad baa jaayoon na alal baatu doomi yaquba yi qabli ca jàkka sama yusufan yusuf yonent yàlla yusuf bokkam ya doomi baayam jaayoon nañ ko waxum te ñoom xum ñoo de ñoom te ñoom ñëpp ñoo baax te ñoom ñëpp ñoo baax <laughs> haasa mbir maa ngi woo xasimu te maa ngi gii sax nag billati jabarom kaaba gi nga xam ne yasri dana royaat wala dana rañaan ilayha jëm ci moom almudhim aji bahoo taxaam bi lati ji borom kaaba gi nga xam ne yasri dana rañaan ilayha jël ñoom almudhim aji bahoo taxaam maa ngi giñ ci yàlla mi moom kaaba gi nga xam ne nit dafay bahoo fu sore sori ndi kaaba gi wa tay fe na borom ñii wër bi aji kaaba gi moom ñii wër kaaba gi woowum te ñoom sunu sun nawaasi way fakk lañ ci kawari ñëy bopp mm. kawari nga gisee ni ndax son soo amun way lappi xar kanam lañ wër ca kaaba ga xame mm. melo wile mm. maa ngi gin ci yàlla mi leen moom moom kaaba ne maa kom du taxawuma de saakal mawqifa boobale taxawaay al muxsi ba daa toroxal waxen di te nekk na fi man diramun benn dërëm defin wu doy waar wili xam ne ku ne ne ñaaw na ba mm. ci man mi ko def ba mu koy def mm. boo benn dërëm am te mun ma ñàkk a dund wax duru ngartalal axaaga sa mbokk bi dina ku baax a baax mm. ko fa tenga teg ando ci moom malaama man yettangee ko xam ne lay fa mu dum dégg kon da nga war a nekk nit rek. parce que luñ la tooñ tooñee nag buñ la gàntululee. war nga mën a jéggale nag waaw. diyatu sambi. xale na gàtte saaru. waaw la nekk nit nag. ñoo a liggéey. bokkoon jamono bu ñu doon jàng hmm. si jamono boobu tam Musa Mar moo ko xam mu jëfe jëfe jëfe jëfe hmm. comme soixante-treize la war ba xam mu jëfe jëfe jëfe mosu hmm. nekk lu mu juróon ku ngeen lu yéeme yéeme yéeme waaye yoo xam ne dafa ñëw taxaw ci bitig bi am ku dikk de jàng ci ak ay kilo boobu ceeb dafa jafe ba ñaari barab yi ñu ko jaayee la sànni muy dañ fay nekk di ko daal di seen nit buñ peeselee kii jàll rek ba kooro war bu jë rek mu fëkk ko daal ñu jàpp ko ko jàppee waaye ku lim lu ci xiir hmm. mu ne ñaari fan ñi ñëpp daal hmm. njabootam këram toggul dara dara dara dara démb ki démb xàll la yandu amul lu mu leen jox hmm. démb xàll la yandu amul lu mu leen jox te soo bëlee mu leen fa baax te amul dara lu mu leen jox waaye lii mu def kenn mënu commissaire bi moom moo fay cinquante kilos ceeb jox ko ne ko demal ma ko dara xam nga kilo te war a jël ma fay cinquante kilos cinquante kilos ceeb jox ko ne ko demal waxu ko dara dara dara waxu ko dara ndi yërëm ku bëgg la ko xëy na kii ne yërmande jooju la bëgg waaye ni roo ñu lor nag wax dëgg yàlla summa qaala topp mu ne ma amma maasirati sama ngaan saman faqat laa feeñ na léegi man wax naa la sama ngànt waa ma dara yi mu ga say dërëm nag faqat taa sànnee ko na la ma joxoon lekk na fa in kaana bu nekkee xisin raaru ka sag jàppu sag kotamu min nii ci man wat wi raaru ka sag jenga andi walit ma li fàtte safaqatika de ngir jégge dayoog saragal ala xubari nafaqatika ci li des ci sa dund su fekkee du gi may du ak rasu gi bañ ko la yàqalaat rekk la waaye lale moom baatu la ko xel bu dee loolu wala su man mais man may koo xam ne yàlla sama dana fàtta mën a tey ni ñaari wa yóotee muy wa yóotee te muy dëggaloo ala jam tey ni ñaari xal loolu xalaatuma ko waaw benn jamono nga lor ci nit ñaari yoon waaw su fekkee bañ maa wati maa ma di ci yow yoon dala yàqal dala waaye loolu baaxatoo ko xel man xelaatuma yàqalaat la fa in kaana bu nekkee iqtiraaru ka sag jàpp min nii jëman waswiraaru ka sag jàng an nii walit ma li fàtte safaqatika de ngir jéggi dayow sag ragal ala xubbari nafaqatika ci li def ci sa dund bi wala man mooy li nga def mi man may koo xam ne mm. yàlla sama dana mu matt marratayni ñaari yoon mm. bu yóotee te muy dëggaloo ala jamratayni ñaari xam mm. wayin kunta boo nekkee nag tawayta de leem kasaka sa legg sa legg sa legg waatante te nga topp suhaaka sa nay li tax tan na nga xetali maa li nga xam ne xaali xaaju na fi afraaki ci samay fiir kon fal takkin na jooy ala aqali ka ci sa xel mi albuwaaki way jooy su fekkee ne yow sa bëggee bopp ak sa ñàkk a dalalee bopp nag moo la heen ci man li la lekkal ma fay la kon képp koo xam ne boo defee mu yóoxu soo yóoxu mu yóoxu la te ne daf loolu man la ko wax waaw su fekkee sa yëpp bàyyi xel ma fay li ma la lekkal kooku man ta manoo ko waaw loolu moom boo képp koo xam ne boo mu yóbbu la sooy boo yóbbu wala wéyin konta boo nekkee taway ta de leem kasa kasa lekk waatan te te nga topp nay bëgg a topp sag li ta tan ngir na nga li maa li nga xam ne xaale xaaju ne gaasara ki ci samay ni li ma xas ba lekk nga bëgg ma la ko ah pas tab kii war na jooy ala xelika ci sa xel mi ak waa gi way jooyi kon de soo qaala al-Haaj ibnu Hammaam haaj nee na battarani mu loru loo xeema bi lafdi ci baatam alxaalib bu daaji huruj wasiir yi ak njeeberam mooy fasaa ak làmmeñam alxaalib bu daaji no mu ne koo xamul no ko de waxam jiite ci la ma jëlee ilaa nott bu ma delluwaat la wa ñaan ko safiyan da xarit ma mujj doon xaritam waa fi yan daraa ji taral bii ci moom. mu ji fonk ko lool. wa nabastu masanni faala tawajjahu. zahriyan ca gannaaw. am defoon masanni wàcc ko. wa in kaana donte nekk na mu soyaan di lëpp. Mm. fari yan lu daa ji màgg donte lu garaaw la. baax na ko beneen yoon incha allah.